waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw euh, xam naa nag mbirum kore gi moom lañ ci waxoon rek loolu tam tegee ci xam-xam mooy liy wér ndax réew yi nga xam ne dañoo tàmbali woon koor gi yëpp alterné la onze mars danañ woor trente jours ndax bis biñ ko tàmbali daa bokkut ci koor gi muy alterné jooju kooku ku koy wax tamit doo ko ci xam-xam boo mën a teg ci loxo waaw te réew yi nga xam ne ñoo ko tàmbaloon altane te mooy lu mel ni imaratul arabiya bahraini algérie euh, benn pàcc ci Soudan benn pàcc ci Irak ndax réew yi ma tudd yëpp am na ci réew yoo xam ne dañ koy wax ni naan woor nañ altane mais fekk na ab pàcc fa woor yooyu nag laa bëgg leeral bu dee Soudan ab pàcc fa woor euh, Irak ab pàcc fa woor wax mu sunni yi ba kowet ñoom tamit altine lañ woor mamlakatul arabi as-saudi altine lañ tàmbali ko le 11 mars euh, Yemen tamit la même chose altane lañ tàmbali koor gi Burkina Faso altane Turki altane Turki ñoom euh, ñoom calendrier lañ yor rek ñoom amuñ problème mu seentu weer bi ñu seentu weer ak yooyu def nañ seen moo tax ñoom ñoom bi ñu annoncé ne altine la ñuy woor tamit annoncé woon nañu alal bi la ñuy woor ñoom xam nañu xam nañ 30 jours la ñuy woor te Turquie googu am na fanweeri réew yu boote ci ginnaawam euh, Tunisie ñoom tamit altine le 11 mars lañ tàmbale woon koor gi Côte d'Ivoire ñoom tamit altine lañ tàmbale koor gi euh, Syrie te mooy Syrie am na fa pàcc boo xam ne altine lañ tàmbale koor gi du Syrie gépp Guinée Bissau altine lañ tàmbale woon koor gi le 11 mars Palestine altine lañ koor gi Qatar moy Qatar altine lañ tàmbali ko ak le 11 mars Liban non tamit la même chose altine lañ tàmbali Mali ab patch du Mali gep amna ño ñoo xam lañ wor Égypte ñon tamit altine lañ tàmbali woon koor gi Mauritanie nonu Niger maay Nigeria ñon tamit altine lañ tàmbali woon koor gi le 11 mars réew yi moy yi nga xam ne la 11 mars lañ tàmbali woon koor am ci réew yoo xam ne benn pàcc ba comme ni moko tudde nonu ñoo tambali altane beneen pàcc ba tàmbali pàcc ba ëpp tàmbali talaata réew mu ne pàcc nangam rek pàcc ba ëpp talaata lañ tàmbali waaye réew yi mu tudd nga xam ne tudd ma pàcc mooy réew yi nga xam ne e, ñoom altane la onze mars la waa réew ma yëpp tambali koor ga te mooy Égypte mooy Misra Lubnaan mooy Liban Mauritanie Philistine e, Tunis mooy Tunisie Turquie e, Koweït mamlukatu arabia saudiya muy Arabie saoudite euh, Algérie mooy Jasaayir Bahreïn ak imarat réew yi mooy yi nga xam ne réew ma yëpp altane la onze mars lañ tàmbali koor bu dee réew yi nga xam ne nag benn pàcc ba ba ci gën a moo ko tàmbali altane ba ci ëpp ko talaata mooy fu mel ni euh, Syrie am na pàcc boo xam ne tàmbali du pàcc bépp du lépp mm. tamit pàcc ba ëpp talaata lañu woor waaw Mali am na ci pàcc boo xam ne talaata lañu woor léegi nag réew yi ma tudd yëpp nag nga xam ne ñoo tàmbali altane moo xam réew mépp la wala benn pàcc ci réew ma nga xam ne altane lañ tàmbali seen koor la 11 mars ñoom ñëpp 30 jours la ñu woor waaw am réew nag yu woor benn mooy réew yi nga xam ne ñoom amuñ jafe-jafe seen weer ñoom weer seen yoon nekku ci li ci dugg dëkk décret génn rek wala benn waaye génn fee rek ci muy xale muy jigéen muy ku jóge ca baar ba muy fu mu mën a doon bu ne ñoom weer yi feeñ na rek seen yoon nekkatu ci mooy réew yii nii yooyu moom nga xam ne ñoom teguñ ci weer moom li ñu woor ñaar fukk ak juróom-ñett bari na. li ñu war ñaar fukk juróom ñaar bari na mooy fu mel ne Mali pàcc bi ci def loolu seen yoon nekkul ci problème mu weer waaw Côte waar la même chose Côte d'Ivoire sax ñoom chrétiens yi fa nekk dañ leen di wax naan leen yéen xanaa weer yi moom daa am bu ngeen ko denc ndax chrétiens yi dañ ci ndax xam nañu benn barab dong lañ fay lañ fay waxee loolu waaw euh, Burkina Faso tamit foofu la bokk waaw Burkina Faso. giine ci la bokk ci réew yooyu la bokk yi nga na ñoom nit ñi ci boppam buñ nee teelee la ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ñoom ñoom saye bu ñu xëy rek rey seen yi nag def seen lépp xam na suba dañuy wari imaam yi mënuñ ci dara imaam yi topp leen ca loola xam nañ ne bu ñu waxee leneen tamit ni ñu duñ ko def ñu bàyyi leen noonu Mali gi ci la bokk Côte d'Ivoire ci la bokk Burkina Faso ci la bokk waaw yi mom moy rew yi nga xamne mom euh, ala kulli hal ñom mom yalla mën naa def ñu war 30 de waye ñom de musuma xam wër ñu waru mat 30 mom ndax ñom amuñ jafé jafé problème gis wër ak séntu wër ak yoy dedet nit ñi ci bopam ño dogu ci lolu imam ya fa nek yeb xamne buñ waxe benen bisu beneen bis bobu tamit ndax ko xamne ne te dañu fa juroom ñen nga xey suba te ray say nak séddale ko mooy way ne dangay war a sub mënoo ci dara loolu mooy problème bi foofu moo tax ñooñu moom waxuma leen léegi bu dee réewi arab yi woor la onze mars nag di altane nga xam ne ñoom lu bon bon sax ñi jéem a tegee ci xam-xam ñoom ñëpp fanweeri fan woor ndax li ko waral leen la euh, altane ca ngoon di la huit mars ca ñoom weer wi day njëkk a soo jant bi waaw ma jël ci exemple fi mel ni Arabie Saoudite weer wa ma ngay so dix sept heures cinquante neuf ca foofa jant ba ma ngay so dix huit heures nga xool nga xam kon weer yu njëkk naa sowee jant bi ci Arabie Saoudite lu mu gàtt gàtt quatorze minutes weer yu day soow génn goxi Arabie Saoudite ba am fukki minute ak ñeent jant boo door a suux waaw weer waa ngay suux ci tënk Euh, dix-sept heures cinquante neuf jant baa ngay suux suux mooy so génn gox gox booba jant baa ngay suux dix-huit heures treize dix-neuf cinquante neuf nag ak dix-huit heures treize quatorze minutes la bu dee fu mel ni Imara day ëpp loolu day ëpp loolu waaw day ëpp loolu bu dee fu mel ni ay Égypte yooyu lu mu gàtt gàtt wéru dana suux moy so genn goxi euh, Égypte wala ci réew bu mu ci mëna doon ay 10 minutes wala lu kopp jant bu doora so lolou mooy tax ñom duñ ko mëna gis té bisu alterné bobu wéru wéru koor yu bala juddu jant bi day so ba pare nga xam kon wéru koor yu deewagut lolou ñom xam nañ ko seen astronome yépp ak seen borom xam-xam yi fiqee sax xam nañ lolou xam nañ né weer mom su juddoo ginnaaw soo gent bi kenn mooy kenn du ko gis waaw kon ngoonu altine googu dala le huit avril ci mbooleem réew yi yëpp ci àdduna sax laay wax amu ci fenn fu jant ba weeru du njëkk soo jant bi même senegal gi sax altine ca ngoon lu gàtt gàtt weeru dana njëkk soowee jant bi ñaari minute yu toftal ay ay ay ñaari minute yu toftal ay seconde senegal gii waaw mooy li ma la wax sànq ci li ma la wax ci ay jamono maanaam géographie bi ni mu tëddee gis nga Arabie Saoudite weer wi day so quatorze minutes jant bi door so Sénégal weer wi day so ñaari minutes jant bi door so nga xam ne kon weer wi fii lay mujj fii lay gën a néewee sax mën naa nekk Sénégal yi tànn ci côté boobu mooy li ma wax rek weer moom fu mën a feeñ ci àdduna Sénégal kon waxaale si su mënut a feeñ Sénégal nag moom kon jëru sax di wax benn réew ndax fii Sénégal du fi man a feeñ donte euh, kuréel yi fi nekk ci bootu ci Arabie Saoudite wala ñu bootu ci gisukon ci réew yi ñu wër muy jamaaxaat ibaadu yeeg euh, rahmaan yi wala wahabis yi nga xam ne ñoom tamit la même chose nga xam ne ñoom altine la osmaas lañu woor ñooñu altine ci ngoon nga xam ne moo seen ñaar ko juróom-ñeent ci ñoom weer wi fii Sénégal dana so ba am ñaari minute yu tegal ay seconde jant bi door so ñoom duñ ko mën a gis kon lu weer sox ba pare moom jërus di wax séentu nga xam ne jamono bi ngay taxaw di séentu weer wi fekk na weer wi dem génn Sénégal loolu xam-xam bu simple bu leer loolu moo tax ñoom duñ ko mën a gis léegi bu ñu xëyee suba nag ca talaata ji ñaar ko juróom-ñeent ci réew yi nga xam ne euh, ñoo tàmbaleen koor gi talaata le 12 mars te mooy fu mel ni ordon euh, nga xam ne mu arab la ñoo Sénégal ñoo tàmbaleen koor gi talaata fu mel ni Albania fu mel ni Maghrib te mooy Maroc gi euh, Inde jullit ñi fa nekk nga xam ne mat nañ deux cent millions yu teg Indonésie nga xam ne ñoo tamit réewum jullit lañ mais duñu arab ëpp nañ deux cent millions Iran ëpp nañ quatre vingt millions Pakistan ëpp nañ téeméeri millions lu topp Barnavi Bangladesh ñoom tamit presque mat nañ deux cent millions yu la même chose soldan Oman Ghana Cameroun Libye Mali see tamit réewum jullit yooyu yëpp ñoo Sénégal ñoo bokk warandoo talaata ñooñu talaata kon le 9 avril mooy seen séntu njot weer wi day mën a feeñ ndax weer wi dana fekk buñ koy séntu mu judd ba am ñaar fukki waxtu ak ñeent nga xam ne lim am dafa dafa bari dana ëpp sax ci yenn réew yi waaw dafay nekk moom presque euh, deux virgule yu manqué tuuti ci leeraay day sori centre jant bi lu toll ci onze degré yi euh, loolu mooy tax dañ koy mën a gis waaw moo tax moom ku tëngu ci xam-xam moom ñëpp danaan wareendoo muy alal ba jooju di la dis abri mooy koré gi comme ni ma ko waxee woon rek yéen soo ko wax nit ñi xam-xam la nit ñi ñooy nag di di dara waaw waaye réew yi nga xam ne Sénégal ñoo warandoo xalaatoon dañuy mën a gis weer wi bu dee réew yi xel xalaatul ñuy waree altani waaw réew yi arab yi moom loolu xalaatuñ ko ndax altani li ma waxoon sànq amul benn ci réewu arab wala benn réew ci àdduna bu weer wi du njëkk a jant bi bu dee Sénégal weer yi dana ba am deux minutes lu mu gàtt-gàtt jant bi door a so bu dee ci réew yi arab moom yenn réew yi weer yi dana so ba am quatorze minutes yenn réew yi jant bi dana so weer yi dana so ba am quinze yenn réew yi weer dana so ba am dix minutes yenn réew yi weer yi dana so ba am neuf minutes jant bi a so bu dee Sénégal deux minutes waaw mooy tax li ma wax ne mooy duñ ko mën a gis ci na ci moom kooku moom xel xalaatu am na réew yoo xam ne ñoom amuñu jafe-jafe boobu moom ñoom moom ña fa nekk sax ñu la gën a xam loolu <laughs> muy ay Mali ak ay Côte waar rek man surtout man ay Côte d'Ivoire yooyu moom yooyu moom amuñ problème yi dara ñoom bu la neexee sax war yi fukki juróom ñoom moom newuñ ci yooyu moom la la fa mu waroon la la ñëpp yi dox seen yoon nekku ci ñoom Mali moom yàgg naa woor ñaar ko juróom ñaar sax Mali woor na ko Côte d'Ivoire woor nañ ko yëpp woor nañ lu mat loo xam ne matul lool moom moo tax ñoom moom génn nañ ci wax ji ñoom moom lu leen la ñuy def yàlla mën naa dogal nag ñu far topp ñëpp rek bu dee ci kuréel yi ne Sénégal fii nag moom altine joju duñ mëna gis wër yi ndax ñepp xam nañu kum neex mën ngaa jël sa montar nga xol ko wër yi dana so bam 2 minutes ñu tek ay seconde jandib do raso kon duñ ko mëna gis bu dee nañ dañ fee bu dee nañ dañuy topi rew arabé tamit batay tey adab la yor parce que rew arabé yi mom bi yor mënuñ ci rëcc ñu ci rëcc de ben rew arabu mëna mën a bu wara mëna mën am ñom nak motax ndax ñom sa bu ñu def ci Dakar dana gis nañ ko arabé saoudi kon bu dee arabé saoudi lañuy top ren danañu war 30 ah, nii daal la tëddee kon altine ca ngoon di la 8 avril mboolem réew yi tàmbali woon koor gi altine la 11 mars altine de jël si juróomi yoon di la 8 avril di seen séntu bu njëkk amul benn réew tàmbale ko ci réewi arab yi yëpp ba ci réewi adduna bi yëpp nga xam ay jullit dañ fa di séntu weer altine jooje weer wi day suux lu yàgg sol yàgg jant bi door a so bu dul Sénégal ak Amérique laa xam ne jant beeg weer yi li ñu du bari bu ko weeri yu njëkkee ñaari minute jant bi door a so boo toppee ci côté Amérique nag ci sow ba di dem jant beeg weer yi mën nañoo sowandoo nii nii rek la waaw waaye ngoonu altine googu te territoire yi àdduna bépp réew bu ci nekk balaa jant baa so weer day so ba noppi. sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq benn gox boo xamee ne nit mën naa taxaw gis weer yi amut caalte na ci te moo weer waa lu ko waral day njëkk a suux jant bi waaw nii daal la tëdde te mboolem astronomie yi ne ci réew arab yëpp Mulhim Handi confirmé na ko sax astronomie bi nekk ko wet ah Cheikh Cheikh doon confirmé na ko réewi arab yi mbolem astronomie yépp xam nañ loolu amul ren moom sax yàlla daa dogal benn astronomie bu ci wuute amul te même altine jooju ci la jàpp jant bi di am muurum jant bi donte nag benn réewu arab du ko gis réewu africain yi tamit duñ gis loolu réew yi gis jàpp jant bi mooy fu mel ni Mexique fu mel ni euh, ay gox ci Amérique ak fu mel ni Canada ak benn benn gox yi nga xam ne ci Europe lañu ñu bokk ba noppi euh, benn pàcc day bokk ci Europe benn pàcc bi génn ko réew yi te mën naa am ñu ci mën a gis jant bi waaye buy nekk foofu day fekk Afrique yi moom day fekk jant bi solu yàgg réewi arab yi waxaale wuñ ko ndax jant bi moom bu sowee Afrique rek mooy war a sonn sonn ci réewi yëpp maam réewi penku yëpp ndax Arabie Saoudite jiitoon na Sénégal ñetti waxtu Émirats jiitoon na Sénégal ñeenti waxtu kon jant buy soo ci réewi arab yi njëkk a so a jaar Maroc Maroc tamit altine jooju weer wi ñetti minutes lay njëkk a jant bi ci Maroc parce que Maroc Sénégal bariwul waaw Euh, moo tax muurum jant muur jàpp mais muur la muur mooy weer yi day dox day dem ba jàkkaaw jant bi net nga xam ne day day wàññi leeru jant bi ba nga xam ne jant bi day xaw a lëndëm noonu yeneen information yi ñu ciy wax nag wérut naan day soppi bëccëg guddi déedéet loolu demewul noonu leeraayu jant bi dong mooy wàññiku yeneen yi ñu ciy waxaat naan ay jàpp day am ay fan ak yooyu amul benn jàpp jant maanaam muurum jant wala muurum weer muy am ab fan murum jant bi di ñew le 8 avril ngeen gaay ak di cinq heures de temps lay am maanaam juróomi waxtu lay doon 30 minutes ci gox yee ya ma wax ñoo koy gis Canada euh, euh, euh makishi ak lenn ci pàcc-pàcc yi nga xamne seen lépp bokul ci Europe waaw te murum jant mom at mu ne limi am barna am at day ñew mo am ci ñent yoon wala juroomi yoon léeg-léeg mu am ci ñaar yoon comme wer bi lu muy am lu bari la amna nak murum jant yu ñew moy japp jant bu ñew 2026 ak 2027 ak 2034 Sénégal la ñuy gis yoy yépp day fekk jant bi du fi sox te japp go xamné la manam li ñuy tuddee kulli waaw éclipse total lay doon ana weer daan kap jant bi mu mu niis xaw la ndëm noonu Sénégal danañ ko gis bi am 2026 ak 2027 ba 2030 34 yi ci yépp Sénégal dana ko gis bi nak Sénégal du ko mëna gis réew arab yi duñ ko mëna gis réew yu européen yu ëpp duñ ko mën a gis yi nga xam ne yëpp seen lépp dafa ne ci Europe a gis moo tax ndax damay gis publication yi ca suuf dañ ci bind naan lii balaa amaat trois cent soixante-quinze année loolu amut jàpp gent moom li mu am kenn xamunu mu toll jàpp weer kenn xamunu mu toll at mu ne lañ cey am ay téeméeri téeméer boo ci jël bokk seekal bu nekk la cay am ci ci muurum jant wala muurum weer mooy li ñaan jàppum jant moom lañ gën a miine ci jàppum jant jàppum weer seekal boo jël la cay am dana ëpp ay deux cent et quelque bu ci nekk